noonu faram fàccal ban mooy lan mooy waral AVC ischémique. waaw loolu lu am solo la li nga mhm. xamante ni maanaam mën nañ jàpp ni mooy waral AVC ischémique rawatina sax dafa doon xeetu AVC bi nga xamante ni moom la ñu ëpp. lu ñuy mhm. seetlu par rapport ak baneen bi nga xamante ni mooy hémorragique bi bi nga xam ni day fàcc. kon bu mhm. ischémique bi moom la ñu ëpp loo xamante ni nii moom la ñuy moom la ñuy gis. gis d'accord moom la ñuy gis léegi nag li koy waral. dafa yaatu. loolu la ñuy wax les facteurs favorisant mhm. muy ñaar yëpp li koy waral dafa yaatu. li koy sabab daf si am yoo xamante ni nii nit muy doomu aadama mën na si dara. Mhm. loolu la ñuy wax facteur favorisant modifiable mais daf si am yoo xamante nii aussi nit mënu si dara ndax bokk na si li nga xamante ni par exemple at muy age ngay jëm mag. Mhm. bokk na si li nga xam ni da koy favoriser xam nga loolu nit manu si dara. Mm-hmm. le fait yàlla def ngay góor. Mm-hmm. góor ñi ñëw ëpp ñu koy def que jigéen ñi xam nga loolu aussi nit manu si dara. Mm-hmm. mais am na yeneen cause yoo xamante ni nag nit mën na si dara. ndax boo xoolee AVC boobu tey yaram bu bari dina ko joxe. obésité obésité. ndax boo mbëfëree yàlla dafay def sa la sa yaram ni muy laloo graisse sa deret it mën naa lalu graisse te bu yàggee aussi mën na indi fatt fatt yooyu. bu loolu jàllee aussi bu loolu jàllee aussi am na lekkin bu sellut muy les mauvaises habitudes alimentaires plus sédentarité maanaam bu fekkee nit ki dafay lekk euh, suukar su bëri lu niin lu bëri di lekk xorom su bëri ba pare euh, du yëngatu mhm. loolu bokk na si li nga xamante nii mën na koo causer yooyu it dinañ si gën a xuus. après si xeetu si xeet yooyu naa ne